يا كتاب الكريم أنت حبيبي وخليلي وكنت قبل طبيبي أنت عزي ومغفري أنت جاهلي santaat yàlla bu baax ci melokaan wi ñu la fekke wii la sëriñ bi fekkee jóg bawoo ndindi ndindi gi ci biir Touba ñëw fii ci Sourah di dëkkub sëriñ Abdou Khadir ñaari dëkk yi ki leen moom di kenn muy sëriñ Fallou ak si Abdou Khadir buñ ko seetoon ci wàllu ndey noonu la demee wàllu bàyyi waxaale wuñ ko sëriñ bi war fee teew ngir lu bari war fee teew ngir ak mbokk war fee teew ngir jëmmi Sëriñ Abdou Khadir war fee teew ngir sa jëmm damay fàttaliku bi nga fi ñëwee ci kasu rajo bi bi mu lay toogloo ci kaw nungu waaye am na baat bu mu njëkkati dana la yow yaay Sëriñ Muntaxa ndax kàddu moo gën a foor ci nit te kàddu gi yaa ko yore sëñ bi moom day xalaatkat daf ko wóor ne démb bi fi ñëwoon lum lu mu fekkoon nga doon ko def danga ko bàyyi te da lay neex lool waaye day xam ne loolu mbirama bëgg mu dox na mu war a doxee moo tax mu ne naa leen yaatal ba ñu teral seeni gan ba ci ëllëg sa ma wër leen ndax ci soxna may la jóge ci la tàmbalee soxna may nag ba mu fa dajeeg suñu seex dane suñu seex sa xalifaa ngi nii sëñ seex na ko waaw waaw dama koo nekkal ci liggéey bi rek sëñ bi gis-gisam dafa yaatu ci wet googu léegi kat bala ñoo bala bala maa sori jumaay ndakaara ji wax na ci lu yéeme léegi man maa jékki-jékki daal ne ñeenti bant yi da doy na waar yañ sempi woon mu ne kon nag bay ba nga jàpp na yeneen dina ñëw gannaaw ñett ñëw na kon bay ba ngeen jàpp ne jëneen dina ñëw fu muy amee nag laa dul xam waaye moom ñeenti bant yi noonu la ko gisee moom euh, sëñ bi nag sëñ Cheikh Bass mii moom sëriñ Abdul Xaadir man na damay dégg ñu naan Cheikh Bass Abdul Xaadir man loolu du ma ko wax Cheikh Bass mu sëriñ Abdul Xaadir laay wax waaw loolu man ci laa ko jëlee nag moom daa daawul nangu lool waaw. nit ñi dañuy yëkkati nit te te fekk ñuy màggal ba noppi woyofal ko ndax nee na bu ñu nee Sëriñ Moussa Bassirou mhm. da ngaa màggal Sëriñ Moussa ba noppi ba noppi bëgg a bëgg a woyofal Sëriñ Bassirou moo tax Sëriñ Moussa mu Sëriñ Bassirou daaw. wax léegi na magu fi ak lii mu yor. moom sëñ Tuubaa ko jox te xam naa fu leer fu ma ko mën a teg ndax lenn lu ne ak koy feeñal fii la liggéeyal sëñ sëñ Saliou mi liggéey boo xam ne ba mu koy liggéey booba lu tax ci moom mu tax war koo mën a engagé lu sëñ Tuubaa amul sëñ Tuubaa rek la ko teg maanaam doonut tey foo xam ne milliards yu mu war a mën a xëcc def ko ci déedéet daa xam ne sëñ Tuubaa yor milliards yi mu ñëw sàkku ci sëñ bi sëñ bi sax da ko doon ree daal di laaj mu Moussa Dieng ne ko ndax dana ko man mu ne ko ñaanal ko rek bi ko sëñ bëgg jox ay kopparit ngir jàppale ko ci da ko ko delloo addiya muy muy tooli puud yi gor ko gor bu yéeme nga xam ne àndu ceeg mbooloo ay machine la ko defee bi mu bi mu noppee matt mi mu dajale ko nga xam ne boobu sëñ bi daan yittewoo matt mi léegi xalaat yooyu rek moo njëkk a yëm sëñ bi ndax bi mu ñëwee dana sëñ bi eh, Moussa Niang dana ko boo boo génnoon ci biti di gis oto yi ñu rangee lépp matt la ngir mu xam da ko soxla ci xel ko mag yeneen daare yi mu buusu ko ne ko yàlla la sëñ Tuubaa liggéeyloo lii mu nekkee nii du ay loo xam ne sëñ Tuubaa ko créé sëñ Tuubaa jëm boppam moo ko def nii mu mel te safiir la kaana safiiran kuy yéwénal la kuy toppatoo la ndax màggalu màggalu sëriñ Tuubaa gii di bëgg a ñëw li ci teew ci ay réew daawu ci teew waaye nag ci aw doxinam la waaye nag li tax nga xam ne siñ Tuubaa dafa am continuité alaaji baara ne ko ŋàjj yëmalewu ko dara lu coow li bari bari alaaji baara ne leen man moom la ni ko alaaji baara téye sax man musuma gis ko téye noonu maa am ci fulla ak fayda ak xam ni eh, day liggéeyal Sëñ Tuubaa alaaji baara daa am lu mu gisoon ci moom loo xam ñëpp gisuñu ko fi ne bis bi alaaji baare wax ndox mi moom la àndal ñu ne ci oto bi xoy yi di wax ne ndox mi du day néew ak yooyu baare boobu mi ngi jël mbaxana mi teg ko fii xam nga alaaji baare li ma ci gën a balaa wax mbir boppam lay lay woyofal ba noppi ba ba ba ba ngir won yëf yi ne newut ci yëf yi foofu mu jëkk-jëkk toog boo ko sëñ Mbàkke nag ne mas na ko koy jéem a defaral mu ne ko sëñ Mbàkke bàyyi sama mbaxane nii xëccaat ko Euh, biñ biñ ko waxee loolu mu ne ko sëñ Basiiru mu ne ko Mbàkke mu a ko maa ngi wut nañ gis-gis de ndox maa ngi nii may gis waaw waaw euh, moom mii nag moom Cheikh Abdoul Karim dama laa wax ay mbiram nga ne ma salimul xal bi la baat boobu yokkoo ci baat wàññiwoo ko ci nettali naa ko bërki démb waaye man damay fas yéene lu ma wax man koo waxaat dag ne ma salimul xal bi la xol bee mucc te it waaw waaw jërëjëf Mbacke muy lu jafe waaw mi ngi nii toog de ñi àndal Ibrahima Mbengue mi loxoom la Xaadim Ndoo ngi nii loxoom la man maa yor kàddoom ñi àndal ñëpp weg giñ ko weg ngir Sëñ Tuubaa waaye weg nañ ko it nag ngir ci jikkoom kenn du toog ci wetam tudd nit xanaa nga tuddee ko loo ko war a tuddee waaye boo jumoon ba def ko bu la tontoo sax yow fa ngay jógee doo xam fooy jaar moom kenn tilimul ci moom ndax ndax ba ñuy wax gars yi nii lañ mel ni mën a déedéet melul leen noonu da ngeen ay taq-taq rek waaye mënees na koo dindi gisal woowu gisin cëy lim li tawajjahat wa rabbil muslim wallaay kon ñi nar a ñu ne ci safaan ba ñëpp jëlañ bokk waaye nag bu ñu ba nopp nag war a bul war a bil muslihu moom waaye juróom noonu la meroon dafa jël jikko jooju ci moom rek kon daal sëñ bi dañuy sàkku rek nga nga gën koo dolli ay ñaan ndax yoon wi bu sëriñ bi newoon cëpp fii day dina ko jox loxo ndax mi ngi ciy defar te bis bu set suñ ko wonee ci télé bi bu siyaar bi doon dox sax da koy téye ba seetaan ko ba noppi ndax foo teg ay kàddoom ak foo teg mel loolu moom moom seeram nañ ko te bis bu set nga seere ko ci moom ñoo xam ne sax moom mi du seen moroom lu baax ngay seere ci moom rawatina moom mii waaw loolu moom loolu moom moom yàlla daal da ko day sa sax nag far yow amul yow liñ naan salbiya wala ijaabiya yow ijaabiya rek ngay xool ci waaye lu lu lu lu lu négatif doo doo ko xool ci nit li war a nekk ci nit rek nga xam ne yàllaa ko ci muy teraanga jooju nga xam ne aaya boobu ni nga ko déggee muy teraanga ji yàlla teral doomu aadama dangay faral di wax ci sa biiri kàddu ni képp koo xam ne jógal nga nit ba ba nga xam ne jàmmaarloo woo kooka yàlla suñu borom ngay jàmmaar lool moom mii na ko ñaanal ndax fi ne màggal gii bawoo na ci tey tey la ragal ragalit ji waaye mi ngi daal di songu masalik te bu ko songee màggalu Sëriñ Tuubaa gi ñëw mu war ko songu xam nga kii noppaluwul moom wutul bala ngaa bëgg bala sa sedd adduna bépp daje toog mm-hmm. mu boole bëgg a wax ak ñoom ak wax ak addu euh, ñëpp ñi fa ñi fa teewul itam mm-hmm. foofu ni ngay yégee lii dana dox rek ci la soxol di sedde da ngay yég ni njuumte du ci am ndam rek a ci am ci waxam moom buy tàmbali rek sa xol bu tàmbalee rek bu toogee rek moom balaa tàmbali sax bu toogee rek te war a jël micro bi rek bu la neexee nelaw. kon nga dolli koo ñaanal bu baax léegi nag dafa am loo xam ne buñ toogoon ak Serigne montaxa danañ ko ko wax ndegam ñi ngi toog ak yow nag buñ ko buñ la ko waxee mi ngi mel ni wax nañ ko ko pousse yooyu ngay dégg da cee nekkoon daan ko def di di wut juróom fukk di ko denc ci biir léeg kenn ñëw sàkku ci moom mu def ko benn bis la am ku ñëw ku mel noonu sàkku ci moom fekk puus-puus amu fi mu ne ko demal ba mu am far moo am nag xamatul xamatuñ kan la man sax la ko laaj ma ne ko kooku nag seetlu naa ko waaye xamatuma kan la ca suba sa bañ toogee ci garab gi mbooloo mi war a siyaar mu ne ma ay puus-puus nag danaa ko woon nit ñi ñu jox ma ko ma jox ko ñu ko yeeyoo ndax bu ñuy jéggi tëli dal day metti lool dama koy seetlu dal hmm. léegi ci la ma wool sëñ Mor Talla mu indi télé rajo bi muy bennoo ma def déclaration bi te bi muy def déclaration bi li ma ci gën a yéem dane sëñ Muntaxa korite gee weesu la waxoon nañ nañ nañ waxtaane makaarimul axlaaq daal ne daal ne sëñ Moustapha sax Moussa Abdou Khadre gis naa ba mu demee Ndakaaru ba muy def discours am nee na sëñ sëñ bi ma digal ndax moom day déglu moom ma digal ma waxtaane makaarimul axlaaq sëñ Muntaxa ci barab bi muy jullikaay bi wax na fa ne makaarimul axlaaq la fi nekk moom rek moo ko mën a defar mu ne moom nag ndigal loolu sëñ Muntaxa joxe da dañ ko war a jëfe du lu ñuy wax ci kese nee na moom mu rocc ci nag puus puus yi moom pour liggéeyal ci yàlla ndax njëkke ci ñooñu laysa ala lahma arajun wala ala laharaj arajun wala alal mari harajun te ba mu koy def déclaration dane léegi du ñàkk ñu ma fi indil xaalis nag xaw ma euh, puus puus lu muy jar xaw ma fu ñu koy jaayee man daal puus puus laa wax te na doon yu baax yoo xam ne des na ci mën a teg ay tànk ndax am na yoo xam ne bu ñu ci toogee tànk yi day lang waxuma yooyu Euh, am ñu ko déggee léeg-léeg nit siyaare ko jox ko puus-puus yëkkati xaalis ne ko da ngaa waxoon ñu boole ci weccet fekk moom dana woon ci biir loolu suñ demee ba di ko séddale benn fanab safar nag ci la koy tàmbali la wax mu ne ko bis bi sowee ñëpp ci nga ko bëgg a tàmbali mu ne benn fanab safar buñ ci àggee kuy jël sa puus fekk bind nañ la buñ la woowee ba nga di ko jël si man danaa ci boole sama wette weccal sa bopp xaw dana bari xaw ma du bari waaye naa ko ci boole léegi am ñu defee ne daa wax ni nañ ma indil puus ak weccet mu waat rajo bi ne waxuma loolu dama ne ngeen indil ma puus puus bi ñu demee ba ma koy séddalee ku jël sa wàll man naa la jox sama weccatu bopp laa wax man mii maa ca teg na waaw comme kon comme neex it boo ñëwee boo ko joxee puus puus ne ko weccit yi dugalaale ma ko ci ba tey jëf ju baax la te ba mu koy woote dana ñi nga xam ne maay seen sëriñ ak ku bëgg lu baax daal ne damaa bëgg yéen ñëpp ne ngeen jàpp na lu baax la moom waxam da koy waaw Eh, waaw nee na ak waaw da ko wax ne yonent bi da wax ne képp ku nangu laabire ci mbokkum jullitam na ko dali jëfe yàlla na nga fi yàgg te wér nee na xam na ne da fi yàgg di nga wér itam nee na sa maam mi ngay liggéeyal juboo naak yàlla mi yàggale tey wérle kon nag ginnaaw sa maam Serigne tubaal lii ngay def rek la bëgg. fokk muy tibb ci li yàlla yor. kon fokk sa maam di tibb ci li yàlla yor. di ko yàggalee. di ko yàggalee. di ko wérlee. la ko sotti. moo tax faw yow da nga fi yàgg moom. da nga fi yàgg mbag da yàgg bu baax. nee mi ngi nuyu magam ju baax. ci moom Cheikh Mamadou Fadil. dikk di rafet lu baax dikk gi. ndax mooy suñu kilifa. ndax nee na yaay kilifaam. boo toogoon fa nga toog toogoon fa nga toog it. yónnee woo sax. day jàpp ne yaa ngi fi. ndax loolu nii la yoon wi doxee. ne ku la xam ku ne itam. gis na ni ngay doxaleeg say kilifa. nee na kon ñoom itam. nee na looloo leen war seen digganteeg yow. nee na li leen boole bari na lool Mbàkke. lépp nag di Serigne te lépp nag di sëriñ Touba. ni ko suñu mag ju baax ja daan waxee Serigne Moudou magam ju baax ja daan waxee Serigne Moudou moom Serigne Abdou Khadir. da daan wax ne. néeg bu yaatoo bari bunt. néeg bu yaatoo bari bunt. waaye néeg bi benn mooy kër Serigne Touba. bi nag benn la mooy kër Serigne Touba. bunt yëpp nag ci kër Serigne Touba la jëm. yëpp nag ci kër Serigne Touba la jëm. ne loolu yi mooy li jiitoo te mooy lépp solo li leen boole yéen ñaar nee na muy Cheikh Mamadou Fadal nee li mu doon ci moom nee na sëñ Abdul Karim mii xam na ko am na ci loo xam ne sax mënee su koo wax waaye waaye magam ju jigéen jim bokkal ndey ki mu jëkk am Cheikh du Fadal mooy woy juróom nee na feeñam ci kaw suuf itam ci moom la sababoo ci lim ci mën a leeral ci Cheikh Mamadou Fadal nee na kon li mu doon ci moom daa bari ne way juru sëñ bi itam yàlla def digganteem ak way juram ñu jaxasoo woon lool muy soxna may galas soxna May Galas waxtu ne daan na ko fàttali. ndax digganteem ak sëñ Abdou Khadir ku ne xam na ko. da koo bëgg ba. nee na ñoom ñi sax moo leen ko gën a bëgg. nee eh, na sëñ Abdou Khadir ku ne xam eh, ne njabootu sëñ Fallou gi. ñi ci ëpp daanaka moo leen tudd. waaye itam yemutoon ci tudd gi. ndax Serigne Mouhamadou Fall moom la leen féetale woon. moo ko doyoon ci moo ko doyoon tam ci ñoom. dana ci nettali. dana ci nettali. loo xam ne Cheikh Mamadou Lamine Bara Falilou moo ko nettali. nee na ci mujj gi. nee na ci mujj gi. bi sëriñ bi demee ba nee na ci cat li daal. nee na bi sëñ bi demee ba mel ne ci cat li daal. docteur bi da koo xool. nee na docteur bi da ko xool. xool ko ba noppi. xool ko ba noppi. ne ko dara jotu la. dara jotu la. ak mag. xanaa ak mag. lenn rek laa gis ne waris na ko dolli. ne ko lenn rek laa gis ne waris na la ko dolli. muy waris naa dolli sa deret. nee na waris naa dolli sa deret. ndax mag gi. ndax mag gi. nee na sëñ Fall ne ko nii sama deret ji nga bëgg ma soppi nee na sëñ Fall daal ni ko sama deret jii nga bëgg ma soppi ko. daal ne teg ba caa mu ne ko xanaa ne ko xanaa ju Abdou Khadir. oh loolu ku toog sëñ Baara dégg ko ci nee na ku toog sëñ Baara dégg nga loolu ci moom. nee na loolu seen diggante. xoot na xootaay boo xam ne mu ne su ko wax ci rajo nee bi fi sëñ Fallou bàyyi ko itam nee na yéen ñi ñëpp moo doonoon seen kilifa di seen wayjur nee wayjuru sëriñ bii nag amoon ci seex Basiru mi ak cofeel lool cofeel goo xam ne daa yàgg sax waaye amutoon ci moom sago soxna may itam maa ngi koy sant bu baax. nee na soxna may galas tam moo ngi koy sant bu baax. ndax ba mu yàlla boole ba léegi. ndax ba yàlla boole ba léegi. moom daanaka day mel ni ab soldaar ci sama nee na day mel ni soldaar ci kanamu sëriñ bi rek. nit cofeelu ku bëgg. nanguwut a dégg ci man dara. nanguwut a dégg ci sëñ bi dara. fu mu dégg mu jëm ci man itam. fu mu dégg lu jëm ci moom itam. dana ko jaral lu ne. dana ko jaral lu ne rek. jaral na ko bakkanam daanaka. ci loo xam ne mu ne su ko wax. nee na kon Mbàkke ñu ngi lay yóbbul ak cant ci moom. nee na bi fi soxna si bàyyi ko wuy juróom bu jigéen. bis bu yàlla sàkk. moo fi jëkk moo fi mujj. ba lu yàgg yàgg. taxawaayam ci moom desul desul ci dara. nee na kon sëñ bi. loolu mi wax rek. loole li leen boole. nee na yow mi nag. sunu borom du juum. lépp loo gis mu defar ko nit rek. lépp loo gis mu defar ko nit rek. am na lu tax am na lu tax. te Serigne Touba defar na la cër. Cheikh Mamadou Fadal defal na la cër. loo xam ne àdduna sépp xam nañ ko. nee te yëgoo ko nag. loolu yi mooy li ci gën a yéeme Mbàkke. ndax doomu aadama. dafa gaaw gis daa gaaw a gis boppam. waaye yow gisoo sa bopp. moo tax sunu borom di la dolli rek Mbàkke nee na cër bi mu la defal àdduna sépp sopp la ñëpp bëgg la gisoo ci dara yaa ngi woyofal sa bopp nanguwoo feeñ ci dara nanguwoo wax ci dara jëlale na sax ki fi nekkal sëñ Tuubaa waaye ki fi nekkal sëñ Fàllu sax waaye ki fi nekkal sëñ Fàllu sax ñeme nanguwoo feeñ ci kanam ak sa kilifa yëpp. ne loolu ab cër la. boo xam ne yombut. moo tax yàlla li mu la defal. moo tax yàlla li mu la defal. Cheikh Mamadou Fadal defal la ko. Serigne Touba defal la ko. mbakke day yokk waaye du wàññi ko mukk. li koy gën a sàmm. ne lu koy gën a sàmm. suñ borom def na ko ci yow. mooy jikko ju rafet. mooy jikko ju rafet. ndax moom. ndax yow. sëñ Galas Jatara mi. nee na barki démb àjjuma rek waxtaan nañ ci ñoom ñaar. bi koy nettali loolu bi ma koy nettali loolu. nee na mu yéemu ci lool. fekk na waxoon nga ma ko na man mii waxoon naa ko ko. ma wax eh, galas jatara ma ne ko. mu wax galas jatara ne ko. sëriñ bi li ma gën a yéem ci moom. ne ko sëriñ bi li ma gën a yéem ci moom. li ñuy wax salimul xel bi moom yàlla da koo. li ñuy wax salimul xel bi moom yàlla da koo defal. mooy xol bu amut keñaan. xol bu amut keñaan. te ñi ko miin ñëpp itam. te ñi ko miin ñëpp itam. Eh, wax nañ ne ab jotaayam. wax nañ ne ab jotaayam. deesu fa tudd kenn. loolu nag dara ëpp ko solo. ba ca desit. nee ba ca desitam. moo yërmande ci nit ñi. nee sa yërmande ci nit ñi Mbàkke. waaye nee loolu du kéemaan nag. nee loolu da nga koo ci Serigne Fallou nag. ndax Serigne Fallou yërmandeem. boo ko doon natt doo xam fu mu àgg. boo bi nga am itam. Pastef bii nga am itam. doomi Serigne Fallou bu amul Pastef. loolu mooy jaaxal nit ñi. ndax Cheikh Mamadou Fadal. bëgg Serigne bëgg Serigne Touba. ak jeex ci sëñ Touba. ak ña nanguwut a feeñ ci lu dul Serigne bi. loolu la ko Serigne bi fayewaat rek. Mbacke sëñ bi nee mi ngi lay sant bu baax. nee na mi ngi lay gërëm. nee lii ngay liggéeyal sëñ Touba ci nit ñi. nee na déggoon na ci Serigne Saliou kat. mu wax ne Serigne Touba. yaari mbir la wax sax. benn bi dana digal na ko Cheikh Mouhamadou Moustapha. na ak Cheikh Mouhamadou Fadil ne kon nag mel na ne. ne kon nag mu wax ne mel na ne. ñun ñi tàbbi nañ ci biir. ñun ñi tàbbi nañ ci biir. waaye yéen itam tàbbi ngeen ci biir. waaye yéen itam tàbbi ci biir. waaye ne loolu du lu ñuy mën a nettal ci mbooloo. mais bi ci des it ci làmmiñam la ko déggee. ci Serigne Saliou. mu wax ne. Serigne Touba daa waxoon Cheikh Maodo Moustapha. ak Cheikh Modou Fadil. ne leen li ma leen fàggul. ne leen li ma leen fàgg fàggul. mooy ku ci mooy ku ci dund. am barke. am ku ci faatu. ku ci faatu. tabbi àjjana te kenn du lay sàpp. waaye li ngeen fi li leen fi taxane ci àdduna. li leen fi taxane ci àdduna nag. du ma ko fàggul kenn. du ma ko fàggul kenn. ndax àdduna jarul lu ma fàggul kenn. wax koy jaamu yàlla. wax koy seenu jaamu yàlla. li ci ëpp solo. li ci ëpp solo. ginnaaw yi suñu borom farataal. ginnaaw yi suñu borom farataal. mooy mooy lu ngeen gën a jaxasoo nit ñi. mooy lu ngeen gën a jaxasoo a jëflanteeg ñoom. gën a jëflanteeg ñoom. gën a dékku seen i métti. gën a dékku seen i métti a a a ëpp seen ci seen jaamu yàlla. nee kon kenn pëlewul ci Mbàkke. ci ngay xëy. ci ngay gont. dégg dégg naa ñu bari moom mii na ko. nee na sëñ Galas Jatara mi nettali na ko. muy lu kéemaane. muy lu kéemaane. wax na sëñ bi nee na boo gisee mu defal këram gi. nee na sëñ bi ne boo gisee mu defal këram gi. jubluwuma ci bëgg àdduna. nee na jubluwu ci bëgg àdduna de. waaye nag damaa bëgg fu nit jógee. nee daa bëgg fu nit jógee rek. ci àdduna xam sëñ Tuubaa. xa fu nit jógee ci àdduna xam sëñ Tuubaa. xam li leen sëñ Tuubaa defal. loolu yi nag. Eh, sëriñ Moodu Moustapha. da koo mos a wax soxna May. ne ko Maymuna. ne ko fu ngeen ne jotaay bu ngeen ne na ngeen ko defar ba ku ñëw ci yéen xemmem Serigne Touba waaye bu leen ko def ngir àdduna def leen ko ngir wane Serigne Touba Mbàkke nee na li ngay def loolu nga ci jublu nee na kon moom jëmmi boppam itam yéene ji mu am ji nga am ci moom ak cofeel gi ak yërmande ji ak fonkel gi nee na moom ump ko xam na ko bu baax Mbàkke waaye xam na nag ak jàppaleem ci moom tam nee na ci lépp nag dara desu ci Mbàkke nee na foo war a féete fi moom rek nee na soxlawul nga yëg ko sax nee na da nga koy def ngir gëm-gëm def ko ngir sëñ Tuba def ko ngir yoon wi nee na mi ngi ñaan ci barkeb sëñ Tuba sunu borom yàlla na la gën a dëgëral gën laa kattanal. nga yàgg faj aajo nit ñi ci yow itam nee na sëñ Tuubaa waxoon na ko itam nee woon na nee si Abdoulaye Mbacke waxoon na ne sëñ Tuubaa nee woon na seenub liggéey de la ca ëpp bokk na ca na ngeen fexe ba nit ñi seenum xel di dem ci yéen di dal di dal ci yéen seen yaakaar it bu mu tas nee kon nag loolu. doomi sëriñ Mamadou Fadil bu mel noonu xanaa ko xamut lay jaaxal waaye ku xam moom da nga xam ne doomi sëriñ Fallou nii rek la wala mel yërmande ak tabe ak oyof ci nit ñi ak ubbil ñëpp amu ci xejj ak seen euh, Cheikh Abdou Khadre Mbacke dadaa wax ne euh, Sëriñ Fallou li ma gën a yéem ci ay waxam Sëriñ Fallou li ko gën a yéem ay waxam mooy mooy ñaari baat yim daan wax. wax ne yaara ñu fi bàyyi. nee na yaara ñu fi bàyyi. xaj ak xajoo. xaj ak xajoo. lu fi waay indi indiwaale ci tilim. lu ci indi waale ci tilim. ñu xajal la ko ba mu set. ñu xajal la ko ba mu set. lu fi waay indiwaale ci ci ci ci ay ayib itam. lu ci ay ayib itam. ñu xajoo la ko la ko. li Cheikh Bass wax ci euh, euh, féetale gi leen sëñ Fallou féetale woon ñoom moom njabootam gi féetale gi mu leen féetale woon sëñ Abdoul Khadir. nee na loolu tax na bind na kaamil boo xam ne ma nga libi. kaamil bi ba nee na kaamil bi ma ko bindee ba jox ko sañ Maxtaar Aminta njaay mu topp ko ci gede. sëñ Abdul Xaadir laa kaamil bi. mu ci. sëñ Abdul Xaadir bind ci kaamil bi. mbind moomee mu ci bind. mbind ba ma génnee. ba ma dama ko photocopie. la sëñ bi bind ma yéey ko. nee li sëñ bi bind ma yéey ko. bàyyi photocopie <laughs> ma bàyyi photocopie bi ci mbind mi waaye bi ma génnee daal damaa photocopie mbind mi mbind mi nga xam ne moo jógee ci loxo si du xaar directement nag nee na moom daal koy jëfandikoo. nee na lii moom du ma ko bàyyi mu ànd ak téere bi ndax xamu fa téere bi fu muy mujj. ma nee na ma jël loolu yéey ko wan ko. photocopie bi nag laa boole bi. bi nag ma boole ko ak téere bi. waaye loolu nee na mooy cër bi sëriñ Fall doxante doxalante diggante suñu sa waajur wa ñu daan ko doxal ñoom ñaar ñu daan ko doxal ñoom njaboot sëriñ Fall yëpp daan ko doxal man de ñaare musuma dem kër sëriñ Abdou Khadre siyaare na ñaare musuma kër sëriñ Abdou Khadre siyaare ji ko te dajewuma faa kenn ci waa kër sëriñ Fall yi faaw rek du ngeen yëgoo waaye faw nga tase fa ak kenn. muy siyaare si ni yow muy siyaare si te koo fa dajal tey. te koo fa dajal tey. bu ëllëgee keneen nga fay dajal. nga xam ne ñëpp bindoo woon noonu ci ndigal li seen bàyyi joxoon seen digg seen diggal Seydou Khadir. Seydou Khadir moom boo mësaan xool képp. Seydou Khadir boo mësaan a toog di ko xool képp. sa xol day sedd. boo amee njàqare sax. boo wala tiitaange sax. day dem. ndax jëmmu Sëñ Abdou Khadir moo meloon noonu nee na jëmmi Sëñ Abdou Khadir daan dàq ay njàqare day dàq njàqare di dàq tiis loolu jógu fi de mi ngi fi ba tey mu ngi fi ba tey nee na yéen a ngi koy doxal bu baax